di leen wax déwénati leen fekke leen déwén baal leen ma àq baal naa leen yàlla ñu yàlla boole baal ñu fekke ay déwéni déwén mën nag papa Madior laa bëggoon waxal moom dafa war a xoolaat kan mooy naar jóob naar bandi la baaxul moom mayul doomam majoor ngir yàlla moom day jaay doomam ba pare bu yemoon ci loolu mu baax moom bandi la du def lu baax du wax lu baax papa maajoor ak maajoor daal su ma sañoon daal ñu moytu ko torop torop